gaa yi yàlla yi di koo xam ne sunu borom daf koo jiital ba noppi di mbóotam ngir mu mën koo taxawalal diineem ji nga xam ne waxtu yi muy ñëw di ko taxawal fekkoon na booba ñu di ko mabbu allahu qaddamahu wa qaddasa sirrahu li yuqiima mabna diinihi lmahdum kon sunu borom moo ko jiital moo tax mu jiitu te ba mu jiitoo sori na yàgg na loolu tax nag tudd gi ñuy tudd lenn ci ay jagleem nga xam ne lu néew la ci lu bari nga xam ne bokk na ci la ca jiitu cay karaamaam moo di sax gi mu sax ci wéetal yàlla borom bi subhanahu wa taala ci saxoo di ko jaamu ci jaamu yin woo xam ne it wu kawe la ba ak jaamu yàllaam kawe jaamu yàlla ku dul moom mu mel ni it karaama nag dafa mënta ñàkk ci nitug yàlla mu di ab cëram mu di ko doxe moo tax dañuy wax ne feeñalu karaama ci wàll yi lu war la lu dagan la it di loo xam ne lu xel nangu la lu warteef la it ndax day melal kattanug yàlla ak nekkam ndax dara mënul am te nekkul ci nammeelu sunu borom moo tax ñu ne feeñalu karaama màndargam dëggal la moo tax gaa yi yàlla yi am ci ñooñu am nañu sañ-sañu doon ko ne ay xaaj la it yii nekk yu feeñ yu ràññeeku yii it nekk yu nëbbu lool la ñuy tuddee yu nekk zahir ak yu nekk baatin du neex a nag ndax ña fi jiitu woon sax dañu ko daan def wax naa la ne bu dee ab yonent moo jisa la ci moom bu dul ab yonent nag loolu mooy tudd karaama xam ngeen ne Seydina Omar ibnul Xataab am na dex gu nekk ca Égypte gu tudd Niil dex la woon goo xam ne da daan daw rek at mu jot dañuy mel ni li ñuy tudde tuuru dañu daan jël ab jàng wala dara faw ñu tabbal ko ci waaye bi Seydina Omar bindee ab leetar yónnee ko ñu tabbal ca leetar ba nga xam ne bataaxal bi lañ sànni ca dex ga booba la gëj daw nga xam ne ba léegi dafa taxaw te loolu kon karaama la te Seydina Omar moo ko defoon moo tax am na ku doon naan karaamatul waliyi xaqan wa zahar منها كثير كرسالة عمر لنيل مصر واستماع الزارية منه الكلام في البلاد النائية nga xam ne Seydina Omar ak ab leetar buñ sànni ci ak dex rek dex gi xam ne leetar bii Seydina Omar la bàyyi ko mu dal waaye xam ngeen ni am na ku ñu tudde Saariya Seydina Omar dafa nekk di xutba ci Madina mu yor ab jëgg li ñëw waaye yoon wi mu bëgg a jaar am na ñuy dogalee Seydina Omar fi mu nekk ci ci minbar bi di xutba lay xaaju ci kaw li xam ne saariyal jabal nga xam ne saari yaa koy dégg te ay kilomètres yu baree bari la wax diggante Makka ak Madina moom ñeenti téeméeri kilomètres la ak juróom fukk ñu koy calcul da ngay wax ne mooy diggante dakaar ak Tamba ñu noonu la makk ak Madina sore waaye nekkul diggante bu jege. nit kii man di dégg loola nga xam ne loolu sax dégg nga sëñ Tuuba mi ngi wax ne ixraajuhu ilal bilaadi naaiya wa naa la fiha fawqa sam an saariya sëñ Tuuba ne ne ma génne ma dem ci liggéeyal yonente bi salaa salaam amee naa ca lu déggu saariya googe nga xam ne moom am naa ca lu gën a kawe ixraajuhu ilal bilaadi naaiya wa naa la fiha fawqa sam an saariya nga xam ne am naa ca lu kawe loola ku ñax ibnu ataullah nag nee na ci lataiful minan mu ne karaama gol yi dana séddadikoo ci ñaari xaaj bu njëkk bi mooy zaahira benn bi mooy baatina te mu ne mooy xawaariq yi nga xam ne yàlla da koy jox gaa yu baaxee ci ay jaamam ka tayil ardi wal mashi ala al wa taylaani fi l wa taksir taan wa sharab ba ca jëkk mel ni taxañ ab diggante nga xam ne am na gaa yi yàlla yi ñoo xam ne suñ borom da defal lu ñuy tudde ab tayyib mooy diggante boo war a dox lu sori ñu taxañañ la ko wala lu mel ni dox ci kaw am ndox am na ci wàllu yàlla yi ñu suñ borom mayoon ñu mën a dox ci ji am ndox wala it naaw ci jaww ji am na ñoo xam ne suñ borom mayoon na leen loola ci yenn ci ay xejjam wala nga mën a fexe ba indi meññet ci bërëb boo xam ne amu fa woon nga xam ne suñ borom da leen di may kàttanu bu nu waxee dara rek loola mën a nekk ñu ne kon moom la yàlla di xéewale ab jaamam nga xam ne dafa bokk ci xéewali biir yi bokk na ci it xam yàlla gu wér ak ragal ko ak dox jëm ci wakkiilu ci moom ak wéetal ko ak bàyyee sa lépp mu mel ni kon dañuy wax ne gaa yi yàlla yi seen may yi nag lim ko lu jafe la wa man lii bi xasalil baxri wal baxru zaqirun wa man lii bi ixsaa il xasa wal kawaakibu nit ñi euh, day mel ni léegi-léegi lim may yàlla yi jafe ci ñoom mel ni ki wàññi biddi wi asamaan si wala nga xam doqi ndox yi ci géej gi ni mu toll waaye bu ñëwee nag ci Cheikhul Xadim ñu ne dañuy wax ne moom kat bokk na ci karaamaam yi gën a rëy te gën a màgg te gën a njariñ annahu laa yafalu illa bi idni rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa yaraa ayaanan wa yatakallamu maahu wa musaafahatan la manaama fa hada min afdali alkaramati wa ajaliha qadra bokk na ci karaama yi sëriñ bi li gën a rëy mooy moom mësta jëf dara te amu ci ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne daf daan gis yonent bi ayaana nga xam ne amul benn kiiraay buy dox si diggante daan wax ak yonent yi ci mushafaha mushafaha mooy tuñante te loolu du nekk ci ay nelaw ñu ne lii bokk na ci karaama yi ci gën a rëy te gën a yaatu mooy jëmmi sëriñ bi ci boppam daf daan jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waxante ak yonent bi alayhi salaatu salaam te xam ngeen ne loolu ab cër bu rëy la boo xam ne ki ko yàlla jagleel jagleel na ko lu rëy rëy waaye gis yonent bi nag day am ñooñ ay borom yi xam-xam lañ sax dañu koy dàq di wax ne mënee su ko def waaye nag dañuy wax ne ku sikk maanaam ku bañ gis yonent bi maanaam ku ku ko weddi ku weddi gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku dañuy wax ne ab dof la te yàlla dàq na leeru xolam tayit ak pertement ak toroxte rek la koy dikkal ëllëg ngir yonent bi sallallahu alayhi wa euh, sunu borom dana may yenn ci ay gaayam ñu mën a gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne ki ñuy wax Muhyiddin Ibn moom da waxoon na wax ju rëy dafa waxoon ne saxaxtu minhu iddata ahadith qaala al-ulamaa'u bi da'fihaa fa axadtu bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yaqa indi shakkun ma qaala lahu al-Muhyiddin Ibn al-Arabi nee na am na xaddis yoo xam ne boroom xam-xam yi bi ñu ciy werante naan addis bi wér na ak wérut yonent bi ci boppam moo ma ko leeralal nee na limu limu ay addis yoo xam ne yonent bee ma ko leeralal te ñenn ci borom xam-xam yi dañ doon wax naan addis yi ay yu daif la yu mooy yu faible la yoo xam ne nii wérul waaye yonent bi ma ko leeralal Seydina Abdul Xaadir Jeylaani fekkewul jamono yonent bi sallallahu alayhi wa te yonent bi jàngal na ko fanweeri xeeti xam-xam ak ñett ci jàkkaam ci Baxdaad am nag mboolem saxaaba yi kon cër bu rëy boo xam ne ah, yàlla dana ko may ay xejjam defal na ko Serigne Touba mu mën di gis yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ngeen ne ci njëlbéenu wooteem rek ci Mbakke Kajoor Chaafa hani la wax mooy tuñante na man tuñante na man dama rabbi asxaabaka bil bil himma yaral sa ñooñ ci yitte ju rëy kon nga xam ne saa yu ma saa bëgg a gis sallallahu alayhi wa sallam dana ko mën a gis ku ñu wax Jalaaluddin Ashiyuti nee na raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wajtamaatu bihi yaxadatan niifan wa sab'iina marra nee na gis naa yonent bi ci jahran nga xam ne amul lu dox suñu diggante lu mat juróom-ñaar fukki yoon nga xam ne gis naa ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku ñu wax Asiixu Aliyul Xawaas dafa wax ne laa ma yakmalul abdu fi maqaamin arifan xata yajtamiu maa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqasatan wa mushafaha maqaamam xam yàlla dëgg nee na benn jaam du ca yegg te daje woo ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngeen jàkkaarloo yaqasatan la manaama mooy du doon ci ay nelaw waaye da di gisante waxuma la gis yonent bi waaye sëñ Tuubaa daana won am na ñoom daan woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu bokk na ci maam borom Sam maam Mor Jaara sëñ bi woolu na ko bis mu ñëw mu ne ko yonent bee fi ñëwoon ngir bëgg laa gis borom sàmm na ko maa ngi sant yàlla ci loolu ndax sallallahu alayhi wa sallam ku ko gis ci gént sax neex na sëñ bi ne ko da ngaa desee xam rek waaye mbooleem turandoom yëpp yaa ko ci gënal loolu la sëriñ Tuubaa ma sa wax eh, maam Mor borom sàmm kon loolu yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw sàkku ngir gis ko sëriñ bi wax ko loolu kon loolu day tegtale rek melo yu yi nga xam ne suñu borom jagleel na ko eh, sëriñ Tuubaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it am na ci gaa yu baax yi ñoo xam ne ginnaawam am nañ maqaamam fekk ko ca madinatul munawara dem ziyaara ji rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yonent bi jël loxoom génne ko ci minbar bi jox leen ko ñu nuyoo ak moom loolu bokk na ci li gën a yéeme ku ñuy wax Seydi Ahmadou Rafahi Ahmadou Rafahi gis nga sëñ Fallou tudde na ko doom Ahmadou Rafahi ku doy waar la woon bokk na ci wàlli mag yi bi mu ñëwee daf daan toog fa mu nekk nam mu yonent bi rek bëgg a siyaare ji yabar ruuxam ruuxam dem madina siyaare rasulullahi sallallahu alayhi wasallam waaye ba mu ñëwee moom bis ba siyaare seen boppam nag dafa wax ne foo fi fi wa fi xaalati l bodi ruuxi kuntu arsiluha tuxabilu l arda anni wa naibati wa hadihi nawbatu l asbaaqi qad xadarat famdud yaminika kay taxsa bi ma shafati bi mu ñëwee ba ci bàmmeelu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa taxaw na ko sama ruu laa daan yónni mu ñëw di fóon suuf si tey nag maa ñëwal sama bopp yow génneel ma sa loxo bi nuyu ma rasulullahi génne loxo bi ci minbar bi ahmadou rafaa yi mi nuyu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne fa xarajat lahu lyaddu sharifa min qabriha fa qabbalaha yonente bi génne loxoom ci bàmmeelam ahmadou rafaa yi mi euh, mën a nuyonteeg yonente bi salaa sallam moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne fa maa yaqin mojisat nabii yajuusu fi karamatil wali lépp loo xam ne dafay yell ci ab yonente bi mën koo def day nekk nag yellef ci yu mu nekk karaamam ci moom kon gis nga kooku li ko yàlla jagleel ci melekaan wu yi moo tax imaamu Sha'raani nee na laa shakka anna man waadaba ala salaati ala nabi alayhi salaatu wasalaam yalqaa iyaanatan wa hiya tariqatul awliyaa fala yazaalu ahadun yusalli ala nabi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne saxoo nga julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nee na lu amul sikk sàkk da nga dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne julli loolu mooy yoonu gaa yi baax yi muy julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ku saxoo julli ci moom it faaw da nga dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne te ku sax ci di julli ci yonent bi dana laabal ci ay bakkaar nga mën koo gis te du doon ci waxtu nelaw.